bismillahi rahmaani rahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alxalqi sayidina wa xabibina wa shafiina wa mawlaana muhammad ibni abdillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ixwati al aiza mustamiuna al kiram asalaamualeykum wa rahmatullahi wa di ñu déglu ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaare di leen balu àq te di leen bal àq di ñaan yàlla yal na nu yàlla boole jéggal ginnaaw loolu ñu ngi ziyaar ñépp di ñaan yàlla mi nga xam ni moom rek moo man moom rek moo xam yal na nu may jàmm biir ak jubiti yal na yàlla faj aaju yi teggi tiisite saafara jàngoro yi yal na yàlla xiir ci boppam aar ñu làq ñu fa yàq yàggul mbokk yi e, noonu la fas yéene ñëw ak yéen ci jaar-jaar yonent yi qissatul anbiya ci sunu kemtalaayal xam ak sunu kemtalaayal dégg yonent yi nag sunu boroom moo wax sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni ko nettalil gaa ñi fekkewul jaar-jaari gaa ñi leen jiitu woon faqsusil qasasa laallahum yatafakkarun waxal fee yi ndax boroom xel yi mën a xalaat mën a science bu fekkee danga nekk ci jafeñ-jafeñ ñu nettali la jaar jaaru benn yonent bu toll woon ak yow foofu naka la def ba mucc ca jafeñ-jafeñ ya bu fekkee danga nekk ci mbégte mu neex yàlla wax sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam ni ko nettalil jaar-jaari nitu àdduna ko fa mos a tollu ba ma yónnee sama ndaw ci moom naka la mujjeek moom maanaam daal yonent yi alayhimu salaam ay régulateurs la yoon yoo xam ni dañu ñëwoon pour régler la monde moo tax seen jaar-jaar alquran indi ñu ko muy jaar-jaar yu noble cos yu am solo yoo xamante ni aw askan mën nañ cee gindikoo mën nañ cee tam jubbantiku régler ci seen économie régler ci tam seen mbir yu baree baree bari looloo tax nettali ak waxtaane xissatul anbiya jaar jaare yonent yi nekkit lu am solo rawatina fii sunum réew toll mu mel nit incha allah ni ñu ko waxee ñaar fukk ak yonent ñaar fukki yonent ak juróom yi alquran tudd ñoo ñëpp incha allah ci suñu kéemtalaay dégg ak li nuy temps bi di may dinañ ci jéem a ñëw ci alquran li nu ci jàng ñu waxtaane ko ak yéen waxtaane ko ci société bi yàlla nanu yàlla defal dégg te defal ñu topp fa tabaarakallaa nu fas yéene door ci maam Adama alayhi salaam yi nga xam ni moom mooy bàyyu mbindeef fii nga xam ni mooy ki yàlla jëkk a bind ci kaw suuf wàccee ko muy représentant ci kaw suuf euh, lu weesu loola it am na yeneen ak ñeneen ñeneen ñoo xamante ni ñëw nañu loolu tax mu euh, isa taxaddasna al an an il anbiya fi l quran al karim fa in alxadafa almarjuwa min zalika huwa ibratul allati talmisu min daawatihim li annahum rusulullahi ila wa daacu ila alxaq li irshaadi albashar wa iscaadihim wa qad zakara allahu azza wa jalla fi kitaabihi alaziz taifatun min al anbiya wa lam yazkur jamic al anbiya walmursalin wa qaala allahu taala wa rusulan qad qassasnaahum alayka min qabl wa rusulan lam naqsushum alayka ca suratul fatir mu mel ni yonent yàlla yi yàlla tudd ci alquran ñaar fukk lañu ak juróom fukk yi ak juróom-ñett yëpp sunu borom subhaanahu wa dajale na leen ci suratul anbiya euh, su maanaam ci suratul an'am mu tudd leen fa ñoom ñëpp soo demee sunu borom ci suratul an'am ma nga fay wax ni wa tilka hujjatuna aataynaha ibrahim ala qawmihi narfau darajatin man nachaaw inna rabbaka xakimun alim ca suratul anaam mel ni tam ba tey sunu borom ni wa wahab naa lahu isxaqa wa yaquba kullan hadaynaa wa nuuxan hadaynaa min qabl wa min zurriyatihi daawud wa suleymaana wa ayuba wa yuusuf wa muusa wa haaruna wa kazalika najzi almuxsinin wa zakariya wa yaxya wa isa wa ilyaasa kullum min alsalihin wa ismaila walyasa wa yunusa wa luutan wa kullam faddalna ala alaalamin mbokk yi sëriñ sunu sëriñ ba sunu soppe ba cheikh abdul ahad mbakke rahmatullah alayhi ñu ngi fàttaliku laay ji ci genn màggal muy wax ni wa haruna wa zakariya maanaam mu commencé te wa wa euh, wa ibrahima wa habna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadayna wa nuuhan hadayna min qabli wa min zuriyatihi daawuda wa suleymana wa ayuba wa yusufa wa muusa wa haaruna nee na wa kazalika najzil muhsinin mu deet ni wa zakariya wa yaxya wa isa wa ilyas kullun min as saalihin mu ni fii kenn mënu fii dugal sa bopp yàlla wax na ko pare loo waaye bari bari bari man-man mënoo fexe ba dugal fii sa bopp mu deet ni wa ismaila wal yasa wa yunus wa lootan mu ne wa kullan faddalna tey kenn mën fi dugal sa bopp kon mu mel ni e, fukki yonenti ak juróom-ñett yii sunu borom subhaanahu wa taala tudd ci suratul an'am mi ngi noonu mu ni mu amaat nag <clears throat> yeneen juróom-ñaari yonent yoo xam te ne yaa ngi leen di fekk ci yeneen ayat alquran mel ne ku mel ne sayyiduna Adama mi fas yéen waxtaan tey alayhi salaam ak Idrissa ak Huud ak Saalix ak Shuayb zulkifli ak sayidul anbiyaa'i wal mursalin Muhammad ibn Abdullahi salawaatullahi wa salaamuhu mu mel ne kon ñaar fukki yonent ak juróom-benn yi alquran wax. tabaarakallaahu e, ñu ngi noonu ci alquran am na ñeneen ñu yàlla tuddul te ay yonent lañu ndax yàlla ni mu bëggee doomu aadama ak ni mu soppee doomu aadama xam ngeen ni tabaarakal du ñàkk moos am ñeneen ñoo xamante ni moos tudd leen te ñuy ay yonent waaye am na benn waykat bu baax boo xam ni moom it e, ci ñaar fukki yonent ak juróom-ñett yi. daf leen boole ci wenn way mu ni tilka xujjatuna minhum samaniyatun min baadi ashrin wa yabqa idrisu huudun shuaybun saalihun wa kaza zulkifli aadama aadama bil muxtaari qad xutimu waaw luut moom la ci jublu ci qad xutimu tabarakallahu kon mu mel ni ñaar fukki yonenti ak juróom yàlla tudd ci alquran mooy ñoom ñu le moo tax sunu borom subhaanahu wa nee na wa in min wa min ummatin illaa xalaa fiiha wa in min kulli ummatin illaa xalaa fiiha nazirun sunu borom nee na xeet wu ma yónniwul ndaw ci ñoom ñu jàngal leen jubbanti leen yar leen ci diine ba ñu dee ci réer suñu borom nee na ñooñu duma leen mbugal duma leen sax kon daam ni mukk ndax koo kon jee jàpp ni moom tooram la moo tax alquran di wax ni wa ma kunna muazibina xata nabaasa fihim rasulan du ñu dogal du ñu du ñu ma kunna muazibina qawman du ñu du ñu du ñu mbugal aw xeet mukk ndareedu yónnee nañu coom ñoom aw yonent bu leen di orienté jubbanti leen teg leen ci yoonu siraatul mustaqim bu ñu lànkee féeteelu nag sunu borom nee na sama mbugal door a ñëw moo tax soo demee ci biir alquran sunu borom subhaanahu wa taala mi ngi ñuy wax ni bisu yowmal qiyaam day e, xeet yi dëgëroon bopp lànk ni duñu déggal seen borom subhaanahu wa ba mbugalum yàlla war ci seen kaw e, bu ñu ñëwee buntu safara suñu borom nee na kullama ulqi fiha fawjun saalahum xasanatuha alam yaatikum nazirun me ne saa wu ab group ñëwee ci bunt safara dañ leen di xas ñu ne yéen bokkul ma leen yéen bon moo ndax xanaa yàlla yabalul woon ci yéen ndaw luy nit na yéen mu leen di waar te di leen moytuloo safaral bi xaaloo ñoom ñëpp ñu tontu ni ko balaa ah kañ kay xat jaa na yàlla kay yónnee woon nañu nazirun ab waaraatekat bu wér sax waaye kay daf fekk ne fa gazab naa ñun ñoo ko fen loo woon weddi ko waxul naa ñun ñëpp ñu wax ni ma nazzala llaahu min shay'in yàlla yónniwul kenn yàlla wàcciwul kenn kenn yónniwu leen waxu leen benn dëgg in kuntum illa fi dalaalin mubiin loolu nekk ci réer rek nag day wane ni yàlla woon moog jaam ñi wàccu nag jaam ñi ba pare moo tax ñoom bu ñu eggee fii ba waa safara waa ajjana di leen laaj waaw ma salakakum fi saqara lu leen indi fii da dégg ñoom ñëpp ñu qaalu lam nakku mina musallin wa lam nakku nut'imul miskin wa kunna naxudu ma alqaidin na fi mu wax ni qaalu kunna nasma law kunna nasmaw aw naqilu ma kunna fi ashabi saxiir ñun kay bu fekkoon ne amoon nañu noppi dégg wala ñu am xol bu mën a dégg yiwu yàlla kon kay tey du ñu nekk fii ci safara kon mbokk ñii la yàlla wax ci alquran xam nga moos nag yàlla ni mu bëgg doomu aadama ak ni mu ko terale lu ñàkk ni ay am na yeneen i yonent ci yeneen i continent yoo xam ne xëy na alquran tudd leen te tee du tee ay yonent lañu yàlla moom mën na loolu ndax cent vingt quatre mille prophètes loolu lañu wax nii ñoom la yàlla yónni kon su ko defee ki nga xamante ne mooy kii yàlla jëkk a yónni ci kaw suuf jëkk wàccee ci kaw suuf te jëkk ko bind mooy sunu maam aadama alayhi moom la ñu nar a tàmbalee nii incha allah fas yéene ñëw ak yéen sunu kemt layel xam ak sunu kemt layel dégg ci li sunu borom subhaanahu wa wax li ñu gën di tegtaloo nag ci wax ji ginnaaw alquranul karim ak hadis nabawi sallallahu alayhi sallam ñu ngi gën di référo ci eh, téereb Seydil Hadj Malick bii nga xam ne moom la ñu tuddee eh, xilaasu zahab fi sirati xayril arab nga xam ni dafa bàyyiwul daray yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyiwul daray yonent yi ko jiitu woon moo tax mu nii alhamdulillahi zil ijaadi wal qidami mumiddina bi wujudil badri sil qid sil qadami summa salaatu wa taslimun yafuuqu ala miskin wa randin ala zil fadli wal qidami wa alihi almuhtadina xiirati alkurama almutami siirati almuxtiri wal qadami maa ar ada raatu wal warqaau tunxibu min xadiiliha wa jara damcun min alqalami wa innahu is araada allahu nashcatana abaana min nuurihi nuura nabil alami radiallahu taala anhu Seydi Xaj Malik moo ñu ubbee foofu ci xilaatu zahab fi siirati xayril arab mu ni inal awaalima aaliha wa saafilaha achiatun talaat min afdali nusami wa alama allahu haadina nubuwatahu wa kaana aadamu bayna nafsi wa nusami uyuuna al arwaaxi min nuuril hudan bajasat fa innahu l jinsu laala maadinu sutumi wa xalqu l axlaaqi baatul anbiya li zuhu li zuhurihi muqaddimatun faalam wala tanami fi aalimi al mulki wal arwaaxu taabiatun lirruuxi wal jismi haza xaayatul karami tabaarakallaahu mbokk yi Seydil Hadji Malick xam nga buñ ne aadama moom la yàlla jëkk bind xel dina ko nangu waaye nag yàlla Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa rek la bind tabaarakallaahu imaam nga xam ni Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa moom la yàlla bind ci jële boppam ci leeru boppam bind sayyidil wujudi wa alami shuhudi ci la nag door a bind nag kaw nu beeg yëpp ndax bu ngeen demee ci xilaasu sahab bi yaa ngi dégg ñu naan la innal awalima aliha wa saafilaha nee na jamu jamu alam awalima mboolem continent yëpp wala planète yëpp aaliha yey ca fees yey ca féete kaw wa saafilaha a yey ca suuf ñoom ñëpp achiatun ay fer ferñeente lañu ashiatun ay rogalaat lañu ashiatun ay desit la talaat yu fenk talaat yu bàyyi ko min afdali nusumi yu bàyyi ci leer gi yàlla gën a nose muy leeru sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon bu dee door ba yàlla dee yàlla nga xam ni moom dong yàlla moo fi jëkk moo fi moo fi jëkk te jëkkam gi amul fu mu tàmbalee moo fi mujj te mujjam gi amul fu mu yem looloo tax si daaj mari tàmbalee ci alhamdulillah mboolem xaaji cant yi di ñeent yëpp lillaahi yàlla la sunu xalifa bu baax ba sunu sëriñ ba cheikh li mahamadil mansour yàlla na yàlla yokk leeram daaw na wax ni xamdul qadimi lil qadimi minhu lahu minhu lahu minhu li gayrihi lahu li xayrihi min min xayrihi wala li xayrihi lahu mu ni xamdul qadiimi lil qadiimi cant gi yàlla di sant boppam cant gu bàyyi koo ci moom jëmaat ci moom ba tey rek lillaahi yàllaa ko moom googu itam boo demee ci alquran yàllaa ngi koy dëggal sunu borom nee na sunu borom xool na boppam ba yàgg mu ni lay laysa kamislihi shay dëgg dëgg maay maay maay jàmbaar kenn melul ne man kenn dabu ma kenn séenu ma dëgg dëgg may mbër may ngant may ponkal man rekk la laysa kamislihi shay kenn melul ne man kooku cant googu ak tagg woowu moom rek moo ko moom kenn ku bàkkoo ku nekk bis dana jot nga xam ne doo mbër moo tax mu ni xamdul qadiimi lil qadiimi cant gi bàyyi ko ci yàlla tey dellu ko ci yàlla minhu lahu moom moo ko moom mu delloot ni xamdul qadiimi lil xadis cant gi yàlla di sant jaamam <clears throat> ki ñu sos loolu tam mooy minhu li gayrihi cant gi bàyyi ko ci moom di dem ci keneen kulul ci moom ba tey lépp lahu moom moo ko moom loolu tam alquran moo nu ko dëggalal mu ni ni'mal abdu innahu awaab ba mu tegee yont yàlla ayuba nattu ayuba muñ rek lu mu ko gën di teg nattu rek ayuba gën di dellu ci moom rek sunu borom di ko xool ba mu dëgg dëgg sama jaam bi sama jaam bi mooy jàmbaar sama jaam bi mooy gor moom daal lu ma ko teg nattu rek muy gën di dellu si ci man dëgg dëgg kon jaam bi gàcc ngaalama jaam bi suuy moom kon xamdul qadimi lil xadiisi Eh, mu delloot ni hamdul xadisi lil xadis sant gi bàyyi ko ci nit jëm ci nit nee na ba tey lillaahi yàlla ko moom rek mooy li xayrihi min xayrihi cant gu bàyyi ko ci keneen jëm ci keneen te tuddoo ci turu yàlla lahu yàlla ko moom mooy imaam nga defal ma taraanga ma ni jazakumullahu xayran yal na la yàlla yal na ma yàlla wuutu ci fayal ma la jazakumullahu xayran nee na ba tey lahu rek cant yooyu yëpp yàllaa ko moom cant gi nga xam ne moo ci mujj nag tamit ñun moom la ñu gën a miin mooy hamdul xadisi lil qadimi cant gi jaam bi di sant boroomam mooy li xayrihi lahu cant goo xamante ni bàyyi na ku jël ci moom ku dul ci borom bi jëmaat ci moom mooy cant gi ñu wax alhamdulillahi rabbil alamin googu cant mooy gi nu gën a miin mooy gi nu gën a jëfandikoo nun ñii di ay jaam ak i taalibe mbokk yi yàlla moom lii moom nag subhaanahu wa bi nga xam ne moom rek moo fi nekk nga xam ne nekkam gi tàmburewul fenn yamul fenn gis tegul dara ci wetam dimb kenn dimbaliwu ko wékkuwul ci lenn baasiwul ci lenn mënoon yàlla lu jiitu nangam ci nangam la fi yàlla nekk mënoo bi fi nangam nekkee nangami at ginnaaw bi la fi yàlla nekk moom dara lépp mooma ba dara dul dara mooma bi la aslëf amee mooma boo liggéey bu dara dul nekkit moom rek ci la bind nag mbindeef foofu ñu wax muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxaguñu aadama mii fa yéene waxtaane moo tax Sidi Hadji Malick imam samaam dafay wax nii wa maa xalaqa arrahmaanu cheyan li nafsihi siwa sayidil mahmuudi wa huwa xabibu yàlla bindul dara ci jëmmam jooju lu dul sang bi nga xam ne mooy ki nu sopp kooku kay mooy soppeem muy seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam la yàlla nag bind seydina muhammad sallallahu taala alayhi mu di ak leer goo xam ni leerug boppam la moo tax ci téere bii ñu jàng muy téere Seydil Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu dafa wax ni wa innahu liy mbir tey mbir is araada ba yàlla nammee laahu is araada ba nammee allahu yàlla nashaatana sos nu nun mbindeef yi abaana la feeñal abaana la tibb min nuurihi ca leeru boppam ga nuura nabil alami leeru yonent bii nu xam te mooy muhammad sallallahu alayhi wa moo tax wax naa la ne innal awaalima jamu aalam ñëpp ña ca kaw ña ca féete suuf ñëpp ay ceeñeer la bokk ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi mu ni booba jamono wa aalama allahu haadina nubuwatahu wa kaana aadamu bayna nafsi wa nusum ci jooju jamono yàlla xamal na sayyidina muhammad sallallahu alayhi ni ko yaay nekk sama yonentab aaxiru zamaan mu ràngoo garaatub nubuwaam te boo fekk na aadamaa ngi ci diggante suuf ak banit booba aadama ndekkagul dara alimenté guñu ko ba dara dul dara ma ngoog moo tax sidaaj Maalik nee na uyunul arwaax mu ni balluk ruux yu sell yi maanaam dunduk li yu sell yi sunu li ruux yi ñun yëpp ak yeneen ruux yu mën a doon in bajasat ñu ngi facce in bajasat ñu ngi juddoo mi nuuril huda ci leeru seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa innahu muhammad moom day al jin su mooy xeet wa nga xamante ni mooy al maadina surtout mooy mbelit ma nga xamante ni mooy mbelit mu nga xamante ne amul puurit kenn du ko sànni sallallahu alayhi wa sallam si daañ maa ne muy nag wa xalqul axlaaqi bind gi yàlla bind mbindeef yi wa baasu lan bi yaay ak yonent yi mu yónni ci diggante bi nee na muqaddimatun ak muqaddimatun ak yëgle la rek yonent bu fi musa ñëw rek da nga doon yëgle rek da nga doon wane ni rek mbër maa ngi ñëw de ponkal maa ngi ñëw de ki yàlla bëgg a ngi ñëw de ki ñoon xaar a ngi ñëw de nee na muqaddimatun ak yëgle la li zuhurihi ngir kattanuk sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa mu ni kon faalam xamal wala tandami te bul sàggan ma ngoog moo tax si daaj maa ngi nee bi yàlla bindee leerug Seydina Muhammad sallallahu alayhi te dara xewul leer googu rekk moo fi nekk di jaamu yàlla mu ni kullu xijaabin lu jiit loolu mu ni wa kaana muxtajiban min qabli fi xujubin yusabbixu llahu fiha gayra mutahim nee na leerug Seydina Muhammad googu nekkoon na di dugg xalwa min qablu lu jiitu lii di am fii xujubin ci ay jamono xalwa lu mu fa doon def yusabbixullah dafa doon sabbal yàlla sabbal goo xamante ni yàlla képp la doon jaamu mu ne kullu xijaabin aqaabal badru fii xuqubin nee na kiiraay yëpp yàlla baare woon di xaar njàmbaaram moom sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi da koo bët nee na fukki junni kiiraay wala fukki junni faculté yoo xamante ne nii ak ñaar Seydina Muhammad leeram googu da koo jàmm moo tax ñun imaam lépp lu nu def rekk dañuy jéem a roy ak di taasu ci barkeb Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye ñun mënunoo jaamu yàlla na mu ware ndax àttanuñu ko mënuñu ko moo tax booy xool ci salatul fatiha mu lay wax ne xaqa qadrihi wa miqdaaril azim yàlla nga ne jullit ci sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam xaqa qadrihi dëgg dëgg dëgg jullit ci kemtalaay moom na mu moom na mu toll moom moo ko xam waaye ñun xamuñu ko la salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baax na waaye xaq qadrihi wa miqdaahil azim dara gënu ko foor te dara gënu ko rëy maqaama ak daraja ci kaw moo tax Seydi Hadji Malick nee na xam naa dinaa la limal dinaa la limal euh, faculté bu nekk ba fa leeru Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam nekkee lan la doon sàbbaal borom bi ci fukki junni kiiraay ak benn ñu ni ko Maodo bindal mu ni fa qudratun minnatun min qabliha izamun wa rahmatun wa saadatun li mustalimi karaamatun baadaha fi l addi manzilatun hidaayatun wa nubuwatun fala tahimi Sidaañ Maalik nee na imaam nee na bi yàlla bindee leeru Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam faculté bi ko yàlla jëkk a duggal dugg na fa fukki junni at ak ñaar douze mille yoo xamante ni moom képp ak yàlla asamaan amul suuf amul dara amul moom dong yàlla ak leer googu biddéew amul lenn amul mu ne fa qudratun euh, faculté bu ñuy wax qudra te mooy kàttan ak suñu borom di ko màggal nee na fa la leeru Seydina Muhammad salaam nekkoon di wax subhaana rabbil ala subhaana rabbil ala subhaana rabbil ala fukki junni at ak ñaari junni at sansewul ñaan sansewul position ba fukki junni at mu génn ci boobu faculté ñëw ci beneen fac bu ñuy wax minnatun mooy teraanga xéewali sunu borom subhaana wa xaj Maalik nee na leeru yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi def na fukki junni at ak benn at ci faculté bi ñu wax minnatun lan la fa doon wax mooy subhaana alimi sirri wal xafi subhaana alimi sirri wal xafi subhaana alimi sirri wal xafi subhaana alimi sirri sensiwul ñaan sensiwul position fukki junni at ak benn junni at ginnaaw ba mu jógee ci fag bu njëkk bi imaam boobu dama la bëgg a xamal mooy ñii di coow boobu fan la ñu nekk ku yaakaar ni am nga lu yonent bi am wala toll nga ni moom bi muy def lii boobu foo nekk boobu ana biddéew yi boobu ana ana jën li ci nekk booba ana asamaan ana kursi boobu ñu dara xewul leeru Seydina Muhammad rek moo fi nekk mu jóge ci boobu fag ñëw ca isam beneen fag bu ñuy wax isam te mooy màggal màgg am na fa fukki junni at moom itam la mu fa doon sàbbal mooy subhaana rafiil ala subhaana rafiil ala subhaana rafiil ala def na fa fukki junni at mu jóge ca booba fag ñëw ci xijaabu raxma te mooy fag yërmande moom itam def na fa juróom-ñeenti junniy at di neuf mille ans xam nga lu mu doon sàbbal subhaana raufur rahim subhaana raufur rahim subhaana raufur rahim sensé wul ñaan sensé wul position lii rek la fa doon wax sallallahu alayhi wa mu jóge foofu yàlla indi ko ci beneen fag bu ñu wax saada te mooy texe moom tax am na fa juróom-ñetti junni at xam nga lu mu doon wax subhaana man huwa daaimun wala yazaalu subhaana man huwa daaimun wala yazaalu sensé wul ñaan sensé wul am na fa juróom junni at yoo xamante nii eh, maanaam juróom-ñetti junni at yoo xam ne loolu rek la doon wax foofu mu jóge fa yàlla indiwaat ci beneen fac bu ñuy wax karaamatun mooy faculté teddange ak terle moom da am na fa juróom-ñaari junni at xam nga lu mu doon sàbbaal subhaana alimil subhaana alimil xalim subhaana alimil xalim subhaana alimil xalim changé wul ñeen changé wul position def na fa juróom-ñaari junni at sept mille ba léegi imaam maa ngi lay laaj ñii defee ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam morom la wala dendandoo la boo fu ñu nekkoon kenn xam fu mu nekk ashrafil xalqi sallallahu alayhi wa sallam yàlla jëliwaat ko ci boobu fag indiwaat ko ci beneen fag bu ñuy wax manzilatun mooy wàccuwaay moom itam am na fa juróom benn junniy at six mille ans yoo xam ni la mu doon sàbbaal borom bi subhaanahu wa taala ak di ko màggal mooy subhaana malikil azimi subhaana malikil azimi subhaana malikil azimi subhaana malikil azimi loolu rekk la doon wax sensé bu benn poche am na fa juróom benn junni at ñu jóge foofu suñu borom indi ko ci hijabul hidaya beneen fag bu ñuy wax ci orientation jubbanti ko xam-xam ak leeral nu ñuy toppee suñu borom subhanahu wa taala suñu borom tàggat ko foofu nekk na moom itam juróomi junni at cinq mille ans subhaana rabbil arsil azim subhaana rabbil arsil azim subhaana rabbil arsil azim ci loolu la nekk changé wul position waxul leneen lijjantiwul leneen niki noonu ba mu fa jógee suñu borom yu barke ci beneen fàkk bu ñuy wax euh, hijaabu nubuwa mooy euh, fàkk bu ñuy wax nubuwa te mooy euh, kii ñu yàlla di déyaleel xam nga mursal ak nabiyun nekkul benn boobu da am na fa ñeenti junni at yoo xam ne nii am na fa euh, junni at yoo xamante ne subhanallahi al azim subhanallahi al azim subhanallahi al azim loolu la fa nekkoon doon doon doon doon doon doon sabal kon daal li bëgg wax ni aadama mi ñuy bëgg waxtaane sababok ñëwug sayduna muhammad sallallahu alayhi wasallam ci aalimul ci aalam bi ñu nekk ci aalimul mulk yàlla nga ko jaarale ci moom waaye nag nekkuk aadama ci leeru Seydina Muhammad sallallahu alayhi ndax bu dul moom dara amul leer yëpp ci leeru Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jullit ak ku dul jullit rek ku nangoo ku lànk ñépp ñu bokk sallallahu alayhi wa sallam yàlla bind leen ci leeru sayyidil wujudi wa alami shuhud moo tax yàlla ñu mu bind ñëpp doomu aadamaa ci gën a kawe wax bëgg ñu reconnaître njëkk bu ñu ba ci biir di xam ni yàlla bëgg nañu reconnaître njekk ndax li mu bind yëpp ne ba ci aadama ak ni mu ko defee xam na ni moo si yàlla bëgg na ñu reconnaître njekk ndax fi mu jaar ak ñun ak malaaka ya incha allah kon nag suñu borom dafa wax ni wala qad karamna bani aadama bu ngeen yëgee ak bu ngeen yëgul yëpp dëgg dëgg maa teral doomu aadama ndax dama jëflanteeg moom ci maandu defar ko defar ko dëkkal ko fu kenn dëkkul melal ko nu kenn melul euh, xëcc ko ci biir groupe bi yëkkati ko teg ko fu ma tegul kenn moo tax mu ni ñii dinaa jëflante ñoom ci maandute ñii dinaa jëflante ñoom ci yërmande nit ñi lu ñu bari bari bari yàlla ci maandute rek lay jëfante ñoom ñii dañuy yor ba giijal yor ba am lu ñu mën a maye lu ñu sonn dañuy judd rek nekk ci teraanga ba ba ñuy màggat dañuy nekk ci teraanga ba ñuy génn àdduna dañuy nekk ci teraanga ñii tam yàlla jox leen tuuti nga xamante ne dañuy kër kër yi waaye bu ñu kër këree am bu ñu kër këru tam du am dara eh, ñii dañuy kër këri ba sonn du am dara waaye loolu lépp ci maanu la di xool nag ndax kenn ku ci nekk na la yàlla def daa ko ci sant gërëm ko wala danga xarab boo xarabee lu tee di nga ca nekk te boo demee mu duma la waaye boo santee mu xam ni sama jaam bi daal dëgg-dëgg comme ni ma la ko waxoon rek ni amal abdu innahu awab sama jaam bi daal dëgg-dëgg jaam la waaye daal lu ma ko teg-teg rek mu muñ moo tax ci société bi dinañ faral di sant nit ñëpp ñu muñ wàññi njàmbat li wàññi coow li wàññi xastante bee xuloonte bee waxante lu ñaaw yàlla rek a fi nekk fii ku ngeen fi jiital l'abstant rek la mu dem keneen ñëwaat kon ñiy jiitoog ñiy jiitalaate ñun ñëpp ñoo bokkee nanu war ni benn buur rek la am mu yàlla li nu bëgg moo ko mën nañ ko ko ñaan te bañ ŋàññee kenn bañ xulootee kenn loolu te buñ ko ñamoon dana baax lool niki noonu imaam mu mel ni e, bind gi yàlla bind nag doomu aadama ci suuf am nañu weddi ni yàlla bindul doomu aadama ci suuf xam nga ci lu bari e, kooku ñuy wax Darwin moom nee woon na cosaanal doomu aadama golo la ay benn borom xam-xam bu mag moo ko tontu moo nekk yow Darwin bu fekkee yow dangu nga ni sa maam golo la nanga nga ko wéete ñun jullit day aadama mooy sunu maam te aadama suuf mooy cosaanam ñun de golo du sunu maam kon nag loolu rek doo na tontu mu ngoog alquran nag moo dëggal wax ji ak xadis bi ma lay bëgg a wax kullukum min aadama wa aadama min turaab yéen ñëpp yéen nga bàyyi ko ci aadama te aadama ci suuf la bàyyi ko beneen bés mi sunu boom ne min xaa xalaq naakum wa fiha nuxrijukum wa fiha nuidukum wa minha nuxrijukum taaratan uxra kon ñooyu yëpp dafay dëggal ni eh, yàlla mi ngi nu bind nun ci suuf suuf mooy sunu cosaan suuf la nu xam tabaarakallah moo tax bi yàlla demee nag ba nam bind nag aadama lamma arada allahu alxalq aadama alayhi salaam awxa llahu l arda inni xaaliqun minka xalqan minhum man yutiicuni wa minhum man yaasini wa man ataacani minhum adxaltuhu ljanna wa man asaani minhum adxaltuhu naar suñu boroom bi yooyu yëpp saxee nag te mu nam ma bind e, doom aadama wala boog nit ci la wax ak suuf ñu ko dinaa bind ay mbindeef yu bàyyi ko ci yow mbindeef yooyu dana ci am ñu ma topp lool gëm ma te di ma màggal te di ma sellal duñ ma booleeg leneen dana ci am nag ñoo xamante ne du ñu ma topp te du ñu ma gëm waaye képp ku ma ci topp te gëm ma dinaa la dugal àjjana dinaa la teral ku ma ci weddi te mooy ma dinaa la dugal safara dinaa la mbugal danaa la lakk loolu tax bi bind gi jotee lu jiitu muy woo malaayika yi di wax ak ñoom dafa yebal jibril alayhi salaam kon nag demal nga tibbal ma suuf ca la ma wala waxoon jibril wàcc ci suuf suuf daldi jooy ni ko suma boroom de waxoon na ma ne dana bind mbindeef ci man te dana am ñu ko ci topp waaye dana am am ñu ko ci moy ma doon la ñaan ginnaaw loolu la nar a def te man xam naa safara na mu mel ñoo bokk maam wala boog ñoo bokk bàyyi wala ñoo bokk ndey xam naa na mu mel xam naa na mu tànge kenn ñemewu ko comme yàlla day bind lu lu muy lakk nag ci man suma ma sañ daal nga tin ma jéggal ma te bañ maa bind jibril nag ku am yërmande la daal di dellu suñu borom ni kan li ma la waxoon mu nettali ko li ko suuf wax li ko kon nag toogal mu yónni Mikaayil Mikaayil moom it daal di dem ah, def li ko borom bi wax suuf daal di wax ak moom li mu waxoon ak Jibril Mikaayil daal di dem sunu borom doon door a yabal nag Azraïl te mooy malakal mawt bi malakal mawt ñëwee euh, daal di ñëw di ko tibb suuf daal di jooy wax ak moom li mu waxoon ak Jibril ak Mikaayil suuf ni ko xam nga lu ma lay euh, Azraïl ni ko xam nga lu ma lay xamal. inni auzu billahi an asilahu amra maa ngi muslu ci yàlla may juyoog moom ci ndigal yàlla sant ma mbir ma di ko ma di ko bañ a def yàlla na ma ci yàlla musal booy boo nga jooy booy boo nga bañ jooy dinaa la tibb dinaa la yóbbu foofu nag ci la tibbee suuf eh, dem ci ñeenti continent yëpp xibla ji kaw xibla sofi sow dem bët saalum dem bët gànnaar wax tibb na suuf su xonq tibb na ban tibb na suuf su beeñ e, façon suuf bu nekk e, tibb na ko moom Azraïl te mooy malakal mawti tabaarakallaahu indil ko sunu borom subhaanahu wa loolu itam alquran moo ñu ko dëggal alquran nee na wa min ayaatihi xalqu samawati wal ard waxtilaafi waxtilaafi alsinatikum wa alwaanikum afala taqilu sunu borom nee na bokk na ci samay kéemtaan bind gi ma bind asamaani juróom-ñaar ak suufi juróom-ñaar ba pare bind leen yéen ba pare ngeen wuute seen melokaan yi bokkul ñii dañoo ñuul ñi xees ñi weex ñi xonq ñii sokola nee na loolu ci samay kéemtaan la bokk xanaa afalaa daaqilun xanaa du ngeen xalaat moo tax bi jibril ba bi malakal mawt indee suuf si suñu borom ko nag indil ndox mu indi ndox mu weex indi ndox mu saf suukar indi ndox mu saf kaani sunu borom subhaanahu wa jaxase lépp daal di mooñ ca na mu ko waxe ci alquran ba mu paree mu tëral ko foofu moo tax suñu borom di wax ni xal ata alal insani xiinun min ad dahri lam yakun shay'an mashkuran mu ndax wax naa la mu ndax dikke na la ndax xabaar nañu la mbirum doomu aadama doomu aadama yi di bàkkoo ko mbër mbërlu kii ngand ngand la ko ponkal ponkalu ndax nettaleen lañ la ay mbiram ba mu nekkee xiinun ci jamono quarante ans lam yakun shay'an maskur nekkul dara du tus kii mooy bàkko fii tey cëm yàlla rek yàlla imaam boo demee ci beneen saar mi wax ne moo alam na jàllu ay nay ni xanaa du mun maa ko may ay bët muy xool wa lisaan ak làmmiñ mu waxe wasa fe tey ni man maa ma ñaari tuñ kon kii di muy bàkku fii <laughs> moo tax yàlla rekk a war a bàkku lu ne wax na ko nag noo ko nangul déglu rek nanguñ koo jàng mu ngoog moo tax ñun fukki fan yooyu moom la fa yàlla tëral euh, stoti boobu lee di maam aadama moo ne mu ni fa kullama marra alayhi malakun min al ajibu min xusni suratihi wa tuuli qaamatihi wa lam yakunu qabla zalika raaw cheyan yusbihuhu min assuwari fa marra bihi iblisu fa raahu fa qaala li amrin ma xuliqt summa darabahu bi yadihi fa ida huwa ajwaf ajwaf fa daxala fihi wa xaraja min duburihi wa qaala li ashaabihi allazina maahu min almalaika haza xalqun ajwaf laa yasbutu wala yatamasal bii ñu ko bunt buntu àjjana ñeen fukki at sunu boom da ko tëral foo xamante ni iblis malaaka yi muy àndal foofu lañuy faral di jaar waaye ibliis ku sob la waaye bu ñëwee rek day daal di téye affaire bi daal di gars yi mais est-ce que xam ngeen lii lu tax yàlla bind ko mais lii lu garaaw la lii xam nan daal xam nan lii daal xam nan lu war a yéeme la lii daal moom daal di dugg ci biir. solu ci biir jaar ci suuf yéeg ci kaw dugg ci biir pax yi booba nit nekkagul dara stat la rek bu fa ni wóolu bu fa nekk mu dugg ci biir ba yàgg mu dugg ci biir daal e eh, xam ngeen lu tax kii nu ko yàlla bindee mu ne mu ne kii mbir la moo xamante ne dafa am ay pax seyul aj waaf dafa am ay pax mu doomu aadama boo ko xoolee mais juróom-ñaari bën-bën yoo xamante ne ñoo communiqué ak mbàqam jëm ci biir tabaarakalla kon jibril euh, comme euh, kon iblis a ngi noonu commencé na tutoyer statut boobu di aadama te nekkagul dara commencé na rek di ko xeeb toog na ba yàgg mu ne waa gaay yi lii yàlla bind nii su yàlla xëyoon xëy rek daal di nii lii tey mooy seen kilifa moo leen gën folli nañ ñu comme ñun nañ ko jege nii di waxtaan ak moom di nekk ak moom tout le nu koy gis ak ni mu neexee bu xëyoon xëy rek jël lii rek tekk ci suñu kaw kon nu ñuy def malaaka ni ah ñun nag day duñu juuyoog suñu borom suñu borom daal moom lépp lu mun wax rek ñun ci loolu la ñu nekk nekkuñu ci leneen ak ah, na yow nga xalaat leneen waaye ñun daal sami'na wa na ñun daal dégg nañu topp nañu daal ñun daal lool la fa fas yéene nekk ak moom. aye Iblis moom dafa nëbbu tontom daan ni pat mais lan la nekk ci intérieur am mooy ah mën na bu yàlla xew ni kii suñu kilifa la tam du ma ko nangul maa bañ moo tax commencé naa bàkk njaag yàlla ko xeeb ni rek la bañ yàlla ko fëgg rek la bañ. yàlla ko wane ne man la rek la bañ te Iblis commencé na koo feeñal doonte waxagul ca kaw doonte fettir léegul waaye commencé na wane nag ni moom mi dara la te nag dara yàlla rek ko ko xam kon nag mbokk yi bu ngeen bëggee xam li des ci yooyu ak waxtaan woowu ak préparation Iblis moomule ak maam aadama fu muy mujjee ak ñoom ñu ñu topp incha allah ajjuma ji ñu jëm incha allah ñu ñëwaat ak yéen ci toppal leen histoire maam Adama ba liñ ci xam jeex incha allah. seen mbokk Oustaz Alioune Mbaye la woon ci waxtaan wi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.